بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لي lenn la ci ay abyaat yoo xam ne ñu ngi ci diiwaanu futuxaati muy diwaan boo xam ne dañ caa dajale ay xasaayid yoo xam ne góoru yàlla bu mag di xalifa Cheikh na Ahmad Tidiane bu am ci moom cër lool ñu koy wax sëriñ Abbas Sall ca Louga moo ko bind di ci wax dara ci ngëneelu Cheikh ñu am nag menn mbokkam sëtam boo xam ne sëtam la di gorom di taalibeem di sëriñ Baye Diagne Gaye sàkku ci ñun ñu jukki ci ab yaat yi doonte sax ñu ngi xat ñu ngi sonn waaye Cheikh na Ahmada Tidiane du yëg sunu xataay du yëg sunu coono كون نك موغي تامبالي في سيرني عباس دي وخي نان اغرق الهي في بحور كرامه وفضائل بتفضل وتكرم كل المساوي ما اقترفنا عاجلا ولعاجل والطف وانعم وارحم لولي ابن دفكو بمحبة الشيخ التجاني أحمد باب النجاة لكل عاص منتمي mu mel ni dafay ñaan yàlla foofu ñaan bu foor waaye ñaan gi mu ko ñaan ci barkeb mbëggeel gi nga xam ne bëgg na ko Cheikh na Ahmada Tijaani mu ne agriq yàlla nga labal ilaahi yow sama boroom fii buxuuri karaamatin ci géeji teraanga wa fadailin ak ci géeji ngëneel bi tafaddulin ci sa ngëneel li ngay maye wa takarrumi ak sa teraanga ji ngay joxe yow yàlla ci lu amul charte ak lu amul sabab maa ngi lay ñaan ci barke ngëneel loolu ak teraanga jooju yàlla na nga labal ci biir géeju teraanga ak géeju ngëneel lan nga fay labal kullal masaawi kullal masaawi bi mooy mafuul bi agriq bi mafuulam mooy kullal masaawi mboolem xeeti ñaawteef mag taraf naa yi nga xam ne fàggu nañu ko ñu ngi lay moom sëriñ abbas radiallahu mu ne dafay ñaan yàlla mbooleem ñaawteef yi nga xam ne fàggu nañu ko yal na yàlla labal ñaawteef yooyu ci géeju teraangaam ak géeju ngëneelam ci sababu ngëneelal yàlla ak teraanga yàlla yàlla bu mu def loolu ngir benn condition lu dul rek ngëneelam ak teraangaam aajilan nag moo xam maanaa ñaawteef yooyu dañu ko defoon walla boog euh, labal googu aajilan na nga ko labal ci li gaaw léegi nii waaye wali aajilin ak li nga xam ne itam dafa war a dikki ëllëg yi nga xam ne def nañ ko léegi ak yi nga xam ne defaguñ ko walla aajilan maanaa ñu ngi lay ñaan nga defal ñu loolu fii ci àdduna wali ajilin ak lay dikki te mooy àllaaxeer ci biir àdduna bi yow yàlla yàlla boo ñu topp dara waaye àllaaxeer it yàlla boo ñu fa topp dara waltuf bi maanaa yooyu yépp nag am na ci xasaf wan'im alayna warhamna loolu mooy nattale agriq boobu benn ñaan beneen soxla bi mooy ultuf waltuf te yal na nga ñëwent yow yàlla ci ñun wa naim yal na nga xéewal ci sunu kow yal na nga ñu sottil ay xéewal war xami yal na nga ñu yërëm ñun sa jaam yi nga xam ne ñoo lay ñaan kon ñeenti mbir la sàkku ci sam ci boromam ne agriq ilaahi war waltuf ilaahi wancim ilaahi warxam ilaahi ñeenti càkkute fi yépp mu ngi ko ci al ilah. yow sama borom labalal sunuy ñaawteef ci sa géeji teranga ak sa géeji ngeneel dégg nga ci àdduna ak ci àllaaxira yow sama borom yàlla nga ñeewantu ci ñun ci ak ci yow sama boroom yal na ñu xéewalal fii ci àdduna ak ci àllaaxira yow sama boroom yal na nga ñu yërëm ci àdduna ak ci àllaaxira waaye loolu dégg nga ñu ngi ñaan yow yàlla nga defal ñu loolu eh, bi mahabbati cheikh tijaani yi ahmada ci barke mbëggeelu al cheikh ahmad al tijaani rek waaye al cheikh al tijaani ahmada bi woy wee tax ñu ràbbe ko noonu waaye li mu ci jublu mooy yow sunu borom yii mala ñaan yépp man sëriñ abbas muy ñeenti mbir muy nga labal ñaawteef yi ci sa géej teraanga te nga ñewent ci ñun xéewalal ñu yërëm ñu def ko bi mahabbati cheikh Tijani Ahmad ahmada ci barke mbëggeelu maulana cheikh sidi ahmad Tijani radiallahu taala anhu ñu ne ko abbas cheikh ahmad Tijani mii ngay wax mooy kan mu ne baabin najaati li kulli asin mumtami babin najati mooy buntu mucc moom cheikh sidi ahmad Tijani radiallahu anhu li kulli aasin ñeel bépp moykatu yàlla mun tamit buy askani soo buy askanoo si ci moom loolu nag baat la boo xam ne ci cheikh na ahmad tidiane lañ ko jëlee ndax cheikh umarul futi yi moo wax ne maolaana cheikh tidiane bi ko yonent yàlla muhammad di jox tariqa bi daf ne ko in kuntu baaban li najaati kulli aasin musrifin ala nafsihi taallaqa bi fa nicma wa illa fa ayu fadlin li bu fekkente ne man cheikh tidiane damay nekk buntu mucc ñeel bépp mooy katu yàlla boo xam ne dafay askanos ci man bu boobaa dana baax lool ma dal di jóg jël tariqa bi tasaare ko joxe wérdu yu nit ñi jëriñoo ko waaye bu fekkente ne nag man cheikh nekkuma buntu mucc ku ànd ak man yàlla mën na laa bottee ci sama gannaaw dugal la safara bu boobaa dëgg-dëgg ooma ngëneel maamam yonent bi ne ko yow cheikh def nañ la ngay buntu mucc ñeel bépp moykatu yàlla bu aju ci yow booba nag la sawar pour nekk sëriñ pour tasaare tariqa tijaan loolu nag la sëñ abbas di jundu ci bayti bi bi mahabbati cheikh tijaani yi ahmada baabin najaati li kulli aasin muntami mu ne cheikh mooy buntu mucc ñeel bépp mooykatu yàlla buy askanoosi ci moom léegi nag mel ni bi mu jëlee melo woowu def ko muy meloo cheikh na ahmad tidiane baabi najaati li kulli aasin tamit mel ni dañ ne ko ah sëñ abbas ñun kat doyalaguñu pour nga wax ñu kan mooy cheikh tidiane yi mu ne bu ngeen xamul cheikh mii nga xam ne maa ngi ñaan yàlla lii ma ko ñaan ci sababu mbëggeel liñ bëgg cheikh yal na yàlla defal loolu Cheikh Tidiane mooy xatmul wilayati aynuha wa mainuha fa li gayrihi bi maqaamihi lam yun ami mu ne xatmul wilayati mooy ki mottalik wilaya bi maanaa wilaayatu dafa tàqali ko ci góor yàlla yi kenn ku ne am dara ci wilaaya bu doon wilaayatu jëmm la kii am na loxo kii am tànk kii am bët kii am nopp kii am lu nekk ñoom góor yàlla yi boo dajalee wilaaya gi yëpp mu nekk jënd jëmm jëmm joojee Cheikh na Ahmad Tidiane moom moo ko am loolu mooy maanaam xatmul wilaayati aynuha te itam moom moo di jëmmi wilaayatu ga wa mainuha te moo di itam sew ndeem ya nga xam ne ñu ngi daw sew ndey wilaaya yiy daw sëñ Abbas nee na Cheikh na Tijaani la mooy almain ala aynu nag firee ko fi jëmm ja faf mooy jëmmi wilaayatu yépp niki noonu itam moom mooy sew ndey wilaaya jiy daw dégg nga lam yu na am falam yu na am li gayrihi bi maqaamihi mu ne yàlla xéewalewul yàlla baaxewul keneen ku dul moom maqaamaam bi sëñ Abbas nee na maqaama bi Cheikh na Ahmad Tidiane am muy maqaamul xatmi maqaama boobu mayuñ ko keneen ku dul moom wa alat riqaab al awliya qadama al wali للنفخ من حيث الوجود لآدم من وعلى كوينا قدمال ولي نياري ندغي ولي ويد شيخ أحمد التجاني نياري ندغم يكوينا نيو رقاب الأولياء ندودي ولي بمعنى قدما يهاتان على رقبة كل ولي لله تعالى مملو فوف من وعلى كوينا قدمال ولي ñaari ndëggi waliyu yàlla wii di Seydi Ahmad Tijaani ñaari ndëgg yooyu ana fan lañu kowe ana ca lan lañu kowe riqaabal awliya qadama bi mooy faa'ili alab ji riqaaba ji mooy mafuul ji waa alab kowe na qadamaal wali ñaari ndëggi waliyu yàlla wii di Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu kowe nañu riqaabal awliya dégg ndoddi waliyu yàlla yépp ñu ne ko ndax wali yi mu bokkaloon jamono rek la wala wali yi ñëw gannaawam la wala wali yi ko jiitu mu ne min xaysul wujudu li aadamin li nafxi boo koy firi noonu nga koy jëlee li nafxi min xaysul wujudu li aadami waaye ne min xaysu dippi fa nga xam ne nekk na fa al wujudu ak am li aadami ñel maam aadama li nafxi ba kera ñuy war bufte ga dippi ba nga xam ne aadama am na yàlla bind na aadama dégg nga ba keroog ñuy wal buftege mooy bi yàlla njëkkee bind doomu aadama ba bi yàlla jeexalee doomu aadama diggante boobu képp ku fi di aw waliyu yàlla ñaari ndëgguy Cheikh na Ahmada Tijaani mu ngi tegu ci sa ak ndodd mu ngi tegu ci sa baat mooy ne moo la tiim ñaari ndëgg yooyu nag euh, euh, boo ko bëggee jegeel rek te bañ a sori ci prix mi jàppal ne mooy ñaari makaama yi mu jagoo ci wilaaya موي الختمية الكتمية متكنا من بحره مدد الجميع بكلهم من صد يخسر في الحياة ويندم من من بحره تكينا كي جيجوك شيخ تجانجي مدد الجميع تبهم يبنا تبهم بولي ولي يال يب يب يب بكلهم الجميع بكلهم معنى جميع الأولياء al boobu alu jins la mbooleem waliyu yàlla yi bi kullihim ci seen lépp nag kenn desul ñoom ñépp seenoom tëbb mu ngi bàyyi ko ci géejug Cheikhana Tijaani radiallahu taala anhu muy waxi cheikh jum waxi ni laa yashrabu waliyun wala yusqa illa min bahrina min ladun aadama ila naqfi suuf benn waliyu yàlla du naan leer maam mu nàndal ko keneen te leer ga bàyyi ko ci sama géej gi depuis bañ bindee maam aadama ba kere bu fekk di wol mu ne man sodda képp ku dëddu géejug Cheikh na Ahmed Tidiane boobu dégg de jawaabu charte bi yaxsar mooy dana réccu képp ku dëddu cheikh rek luy xew ci moom mooy yaxsar day perte fil xayaati ci dundam wayandami mu réccu ci àllaaxira dana perte ci dundu àdduna dana réccu àllaaxira yandami bi baadal xayaati la waaye yaxsar bi nag fil xayaati man sadd képp ku terewu na ku dëddu na ku dummóoyu suñu abbas nee na képp ku woon mawlaana cheikh sidi ahmad tijaani gannaaw kooku dana perte ci àdduna te dana réccu ci àllaaxira bi mu ñaanee yàlla nag lii mu ko ñaan ba noppi te ne mu ngi ñaan yàlla yàlla maye lii ci barke mbëggeelu cheikh na tijaani gi nekk ci xol yi ci la wone kan mooy cheikh na ahmad tidiane ci bayt yi bi matalee foofu nag